chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Dakar Media TV comme ni ñu koy defee à chaque fois toppal leen actualité en temps réel di leen ko euh, jox que des informations justes et ñu ñëw rek tey ci cérémonie d'investiture bu président Bassirou euh, Diomaye euh, Faye fa li nga xamante ni rek moom mooy ca Diamniadio jàkkaarloog conseil euh, constitutionnel article 37 bu suñu constitution moo tënk bépp président boo xamante ni dañ la fal dangay jàkkaarlook jàkkaarloog les sept sages daal di prêter serment ci li nga xamante ni rek moom moo la tënk ci constitution ak li nga xamante ni rek noonu nga war a en tant que président de la république moom Bassirou Diomaye Faye nag def na ko comme ni ko président yi fi euh, jot a jaar euh, euh, defee waaye nag bile euh, cérémonie d'investiture ute naag yi nga xamante ni rek dañ ko daan euh, gis comme yenn ci président yi nga xamante ni euh, dañ fee bàyyeekoo moom nag daf ko daal di def en toute discrétion ndaxte rek nee na bëggul xumbaay bëggul li nga xam ni moom mooy mumbaay dafa am fu leen askan bi di xaax te foofu fa la nekk dafa war a liggéey gis nañ aussi tam ci discours bi kàddu yu responsable yi nga xamante ni yëkkati na ko rendre hommage les martyrs de la démocratie yi dañoo génnoon depuis 2021 ba 2023 euh, jàmmaarloog euh, régime bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon di xeex ba am ñoo xamante ni dañ cee jëlee ñàkk seen bakkan ñi jëlee ci ay euh, laago daan dañ leen hommage bu baax a baax moom président Bassirou Diomaye Faye waaye nag jàpp na ni sacrifice bi nga xamante ni def nañ ko à son négar wala waa Pastef moom gis na ko xam na ko du leen mës décevoir te li nga xamante ni moom mooy résum résultat yi nga xamante ni moom moo jukkee ci urne yi wane na ni le Sénégal dañoo bëgg li nga xamante ni moom mooy euh, rupture ci régime bi nga xamante ni rek moom moo fi euh, jotee a euh, passé gis nañ aussi passation de pouvoir bi nga xamante ni am na kaak le président Macky Sall gis nañ maanaam Sénégal soppi na xar kanam ak ni nga xamante ni noonu lañ ko doon médiatiser à travers le monde ñu bëri duñu waxtaanee mais à travers image yi nga xamante ni gis nañ ko gis nañ bu baax a baax maanaam daal Sénégal delluwaat na fa mu nekkoon mooy dëkk boo xamante ni dañ ñoo xam euh, ci euh, euh, démocratie gis nañ aussi njiital Pastef bi di Ousmane Sonko ca cérémonie ba di saafontoog président yi nga xamante ni ñoom ñoo bàyyeekoo ci seen ay dëkk ñëw teewee li nga xamante ni rek moom mooy cérémonie d'investiture ba gis nañ aussi moom Ousmane Sonko ànd ak ki nga xamante ni moom mooy première femme am di Khady kebe waaye nag laaj bi nga xamante ni moom moo samp actuellement ani Anna Diamanka mi nga xamante ni moom mooy ñaareelu Ousmane euh, euh, Sonko gisuñu ko euh, ci bile cérémonie ay temps jotoon nañu ay rumeur à travers l'internet ñu bëri naan moom na Diamanka dafa daal di euh, fay ndax lu nu mel dëgg la wala du dëgg waaye daal euh, tey bu nu gisee image yi moom Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Khady di première femme ñoom ñoo dugg seendoo fi nga xamante ni rek moom mooy ca ca Diamniadio Bassirou Diomaye fay itam gis nañ fa moom ak ñaari soxnaam yi muy un président boo xamante ni il est jeune à l'âge de 44 ans la déggee li nga xamante ni mooy président de la république nekk nag président boo xamante ni euh, mun nañ jàpp ni moo gën a nekk xale ci président Afrique ak euh, sowu jant waaye nag ñu gis ni tamit euh, maanaam mu nekk président boo xamante ni dafa jugee ci opposition ñëw gagné élection yi dès le premier tour mu nekk loo xamante ni rek ñu ngi koy soog a gis ci li nga xamante ni rek moom mooy Euh, Sénégal Atépa na njëkkati na aussi moom tam ay euh, kàddu euh, dànkaafu ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy askan bi rawatina jeunesse bi ñu gën a ànd ak patience ak dal ndax dara xëyul sotti nañu may temps bu baax a baax basiiru Diomaye fay daal di liggéey ndaxte rek mënuñu xëy lépp nooy lépp jaar yoon mais nag ñoom seen priorité Euh, waxoon nañ ko dafa bokk ci li nga xamante ni rek euh, moom la ñuy njëkk a euh, teg comme ay jéego muy wàllu dund bu cher bi nga xamante ni sénégalais yu baree bari ñu ngi koy ñaxtu actuellement wàllum dëkkuwaay location bu cher bi ak li nga xamante ni rek moom mooy xëyul ndaw ñi ndax gis nañ taux de chômage bi nga xamante ni rek moom moo am Sénégal actuellement jéggi na dayo te ñoom nag nee nañ dinañ ci xar seen tànk tubéy ba lu ni mel daal di wàññeeku bu baax a baax a baax fi nga xamante ni rek euh, moom mooy euh, Sénégal ñu ngi xaarandi itam euh, première nouveau gouvernement bu prési bi président Bassirou Diomaye fay ndax tey nag jël na ay fonctions en tant que président de la Euh, république kon nag euh, gouvernement am ñu ngi koy xaarandi euh, ban gouvernement wala ban premier gouvernement la nar teg moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nañ aussi tam ca boobulee daje yenn responsable wala yenn leaderu parti ña nga fa woon gis nañ aussi tam ñenn ñoo xamante ni rek ñu ngi féetee ak nguur gi ña nga fa woon waaye gisuñu teewaayu ki nga xam ni moom mooy Khalifa Ababacar Sall nekk président bu taxawu Sénégal ak Barthélémy Dias bi nga xamante ni rek moom mooy maire ville bu euh, Dakar gisuñu ko ci boobulee euh, daje waaye nag bu gisee information bi mu daal di posté ci page Facebook am euh, moom Barthélemy Diaz ci boppam daal di nay souhaité bu baax a baax bon vent ki nga xam ni Euh, moom mooy Bassirou euh, Diomaye Faye ci fonction bi nga xamante ni euh, jël na ko tey yàlla jàppale ko taxaw ko bu baax a baax a baax nee na de tout cœur mu ngi koy souhaiter daal bon vent moom Barthélémy Dias daal loolu la bind jagleel ko ki nga xamante ni rek moom mooy le président Bassirou Diomaye Faye gisuñu ko ca daje ba mais daal di nay posté daal di koy souhaiter bu baax a baax yéen bi nga xamante ni sénégalais yi yéen nañ ko ko mu daal di oyof toll ci euh, euh, kawam di leen jox dig daje incha allah rabbi euh, très prochainement ci yeneen yi actualité comme ni ñu koy defee fii à chaque fois di leen ko toppal di leen ko jox en temps réel merci